leen Goudi gi tey Goudi le boo xamante collectif des sénégalais de la diaspora ñoo waral tey teewaay bi fii nee naa leen ñi jógee nañu fep à travers euh, le monde entier lay wax ndaxte suñu né diaspora doomu Sénégal ñi ngi fep tay nak ñu tok fekk ko xamanteni mëna né naa la suma né nee la ci walu ligéyam suma né nee la ci walu prestance am su ma nee la ci walu charisme tay nak momit mo am émission bo xamanteni ni yaakaar ni diaspora dafa sax ci xolam ndaxte képp koo xamante ni yaa doomu Sénégal nek ci diaspora bi problème bo mënte am elle est la première personne bo xamanteni ni seen eh, émission boo xamante ni lépp loo xamante ni jafe-jafe waa diaspora la tey Kebs Thiam ni ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Tange di rafetlu sa liggéey di kontaan ci a ah, fekk bi ma la fekk fii àndandoo kon bi ñu àndandoo ah, ñëw fi nga xam ne moom moo di rek ah, New York kontaan lool bu baax ci interview bi ndax nag li nga xam ne liñ naan lu yëngal lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole muy waa CDC donc am naa mbégte lool ak plaisir u fekkee lii. tey keps ñi xam la ci diaspora ndaxte ku ne keps ne na ko émission diaspora nga ñëw daje fekk ay ndaw yoo xamante ay jigéen la ñu ñu dajale seen bopp def benn collectif tuddee ko collectif des sénégalais de la diaspora tey initiative bi nga xamante ñoom jël nañ ko ak tey guddi gii ñu amal tey yow lan moo ciy sa xalaat ak ban impression nga ci am. waa Tange dafa nekk lu rëy ndax euh, xam nga Sénégal mënut a dem sans sa diaspora te loolu dafa am solo dëkk yi nga xam ne dañoo dem yëpp seen diaspora contribution bi mu ci am kenn naatable wu ko Ah, ñu nekk ñoo xam ne nag li ñuy dugal ci réew mi dafa am solo mais chaque fois dañuy yem rek ci ah, dañuy dugal plus de 1000 milliards ah, ñoom nag waa CDS collectifu diaspora sénégalais de la jaspora ñu xam ne nag jot na ñu taxaw jëmmal seen bopp nag parce que li ci am solo mooy fi nga xam ne fa la ñu nekk yëpp muy ci dëkk bi ci àdduna bi pratiquement fépp la ñu nekk fu ne rek ñu am fa koo xam ne teewal na leen fa mu nekk organisation boo xamante ne dañuy dox ci développement yoo xam ne mooy jëmmal am réew mooy tax am réew daw ci kanam kon daje bi du ñu def lu dul kontaan ci ah, di ah, encourager leen di ñaan rek mu gën a yaatu ah, te ñi nga xam ne ñoo ci war a jàpp ñu gën leen a jàppale ndax li ñuy def amal na solo doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ba pare di xalaat li nga xam ne moom moo di seen retour waaye itam amal na solo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bitim réew looloo wax moo tax affaire bi mu di rek collectif bi nekk loo xam ne lu doy waar la tâche tey ñi gis collectif bi suñu xoolee seen objectif ak seen euh, ambition da nga ci tudd développement ñu gis ko ci ñu gis ci culture Senghor daan la culture est un levier pour un développement économique d'un pays ba noppi ñu gis ci ñi jaar ay awards di ko joxe maanaam muy ay diplôme de reconnaissance de jaajëfal tey loolu yëpp ñu boole jëgale ko ci développement jëlee ko ci culture jëm ci wàllu aussi développement ak awards yooyu ñuy joxe nga xamante ni dafay gën a ñaax nit ñi en tant que jigéen tey yow nga nekk une femme boo xamante ni tu es devant les écrans ban message nga ciy lancé képp koo xamanteni yaa ngi ci diaspora bi te bokkagoo ci collectif bi eh, dëgg la temps li ñuy lancé rek mooy na ñëpp adhéré parce que dafa am solo ndax ay nitu valeur ñoo nekk ci biir su ma waxee nitu valeur nag mooy nit ñoo xam ne dañoo eh, nekk ñu patriote ñu bëgg seen dëkk bëgg seen dëkk nekk bitim réew terewul ñu xalaat ko ndax ku nekk bitim réew eh, di xalaatal sa réew collectif bu mel nii dugal ci yi nga wax léegi mu di développement mu di lépp loo xam ne day jëmale Sénégal kanam kon ñun dañ ciy kontaan di lancé appel nag di wax ne na ñëpp adhéré ndax bu ñu li ñu naan xàccandoo doorandoo ndax kenn ku nekk bu ñu jëlee compétence yi multiplier ko day tax mu gën a euh, dem ci kanam aller de l'avant li nga xamne mom lañuy wax nak mom modi euh, pacc yi nga xamne mom mo am ci biir yépp dafa am solo waxna ko sank euh, moy ci walu culture ak ci walu lepp gis nga tay événement bi nga xamne euh, mom moñu dajale fi kon dal suma yebone collectif sénégalais de la diaspora bi mu am ci nak ay nit yo xamantene ni fiñu nek di fa liggéey dañu leena fonku naw leen dafa am ay sénégalais fépp ci àdduna bi dañu nekk ci ay sphères yoo xam ne Tange euh, ñi ngi valoir satisfaction Sénégal ci niveau yoo xalaat ak yoo xalaatul sax donc il est temps ñu boole loolu te ñoom loolu la ñu def ngir aller de l'avant pour que Sénégal gën a mën a dem ci kanam ba noppi itam gën cee mën a jëriñu ndax bu ñu waxee euh, li nga xam ne mooy apport bi nga xam ne euh, diaspora bi dañ koy andi seen réew yemul rek ci li nga xam ne moom moo di koom-koom bi ñuy dugal mais daf ci bokk itam transfert de compétence ak lu baax loo gis ci yeneen i réew da jël ko andi ci yoon boobu kon yaakaar naa ni ñëpp a waree adhéré ci li nga xam ne moom moo di lii nga xam ne day jëmale euh, Sénégal ak euh, sa diaspora ci kanam. kon yaakaar naa ni kàddu yu rafet na ñoo ko déggandoo Kebs Thiam di la remercier di la jaajëfal di la souhaiter une très bonne soirée. merci beaucoup à toi Tange et je te également une excellente soirée ah, di wax ne itam yaa ngi def euh, liggéey bu am am solo ah, moom moo tax rek bu ñu dajee fii ñun ñëpp rek li ñuy def mooy xàccandoo dóorandoo ndax nag la force ndax nag célébrer award yi wax naa wax nga ma ko sànq euh, mooy rek euh, célébrons nous vivants euh, bu ñuy nekk nañu fekk doomu aadama bu amee valeur ci réew liggéey lu rëy ba nga xam ne rëy na ku mel ne Omar Pène ku mel ne Xaar Mbay ma jaaga ku mel ne Alaaji Mansour Mbay dañ leen di célébrer de leur vivant di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan may leen wér ndax dañoo def lu rëy ci Sénégal def ko ci culture kon nit da nga koy célébrer célébrons nous vivant di waxante lu baax di defante lu baax loolu Sénégal célèbre nous vivant di le lu bax di waxante lu l'Obar, Sénégal mo ciy gañ kon yakana et ni cadeau la Kepsi, merci beaucoup.